ki kan kii c'est kii kii c'est la kii c'est la femme la plus précieuse pour man kii ginnaaw yàlla lu ma doon moo ko def ci man kii mënuma wax ci moom depuis sa mort euh, je m'évite même pour regarder sa photo euh, parce que voilà quoi kii kii mooy suma àdduna kii moo def suma àdduna moo def li ma doon. Mm-hmm. Euh, ci jigéen yombul. une éducation boo xamante ni musuñu dóor te pourtant il nous a bien éduqués il a elle réussi euh, vraiment euh, elle a réussi son éducation ci ñun te dóoruñu lépp ci ay yedd weet gore wettaliku go bu la mar naan mosa taxa naan petit je me rappelle la générosité sax ndekete lu ñuy def ci doomu aadama la man dama siis woon dama siis woon nit ku siis laa woon euh, bu toggee bu yàkkee des fois ñun buñ génnee mu jël lépp yàkk ko ñeneen ñu dëkkul ci kër gi ñoo koy lekk su ma ñëwee di kaas affaire yooyu jàppal bàyyi naa ngi koy ngay jëlee doomu jàmbur yi di leen jox bàyyi say propre doom mu ne ma tu n'as rien compris li may def nii yëpp yéen a tax ma koy def lenn moom xam naa ko te gëm naa ko mooy du ngeen mësa a seen àdduna ndax euh, naa la wax tey benn mbir nga téye ko dama bëgg ci sa àdduna sa moroom yi ngay àndal yépp na nga fexe ba na sa njëriñ ëpp ci ñoom que ñoom seen njëriñ ëpp ci yow mm-hmm. mu ne ma na nga fexe ba lépp lu ñu am nga bàyyee leen ko te loo am na nga ko bokk ak ñoom ma ne ko mais bu boobaa ñoom dañuy avancer man du ma avancer mu ne ma déedéet mu ne ma xanaa xamuloo ni allah la bilaa xam du dugg àjjana mukk am yàlla jox la toog ci xoole mhm. donc cette cette phrase vraiment def ci man tawhid cette femme c'est voilà quoi mooy loolu <laughs> alors lan moo lan moo nekk seen euh, dernière euh, discussion yéen ñaar parce que ci feebaram ah. dama gis ne sonn nga ci dem nga dellu siwaat demaat dellu siwaat ba xëy na balaa muy wàcc liggéey lan moo nekk seen dernier discussion yéen ñaar waaye suñu <laughs> suñu dernière discussion bi mu génnee juste bloc opératoire euh, bañ dugal ko réanimation ba mu ximmaliku ñu teg ko ci chariot bi ma koy pousse pour delloo ko chambre am bi mu ñëwee ba ci chambre am ma jàppoo ko ak sama sœur bi bañ teg ko ci lalam j'étais en appel vidéo avec euh, ma fille aînée ki ma ko tuddee mhm. moom la mujjee waxal moom la mujjee waxal Euh, bi mu paree ak moom appel vidéo bi kàddu yi la ma wax ndax xam nga ni kenn du la musa yërëm ma ne ko cest à mu ne ma te say noon duñu mës a bëgg mu ne ma lenn kese laa lay dénkaat bul mësa a lu soxla doomu aadama yi lépp loo ci mën taxaw ci quelque temps ci la gëj a ci la duggaatee ci comment mhm. ba keroog ni muy génnee àdduna donc mu nekk une période très dure parce que dafa nekkoon koo xamante ni gàllaaj la ci man mhm. gàllaaj dëgg dëgg dëgg ci lu bari ci saayir ci baatin je me sentais très fort quand je la voyais su ma toogaan Dakar ba yëf yi jaxasoo lu mu métti métti lu mu guddi guddi je prends ma voiture dem ba ci moom su ma ñëwee lenn kese laa koy lenn kese laa koy suñ nuyontee ba kii je me fu ma siggee xool suma yaay ci bët musul am toujours sëgg ci ci damay sëgg ci ay tànkam wala ci ay kiiwam su ma nee dénk naa la yàlla c'est comme si téléphone bu déchargé bañ chargé waat ko ba mu ñëw à cent donc da doon nekk loo xamante ni vraiment soo dajale woon kullu maa mën ci àdduna dajale lépp ñu jël composant cangatak ak ñaan yi ñu am yëpp jox la ko ce mot là ou cette phrase là daf la daan motiver li mu doon def ci man. Mhm. je je peux même pas je peux même pas l'expliquer donc voilà yal na yàlla xare ko. amiin amiin